ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan fu ngeen mën di nekk ci biir réew mekk ci bitim réew euh, ñi ngi leen di nuyu di leen dalalaat jàmm tey ñu ñëw fii ci euh, kër kàbbu di wax nag alhamdulilahi rabil alamin euh, gannaaw taxawaay bu mel ni bi ñu ko taxawee woon ci li nga xam ne rek moom moo di barab bile li ñu fi andi woon rek moom moo di sàkku ci askan wi ci rawatina nag seen ak taxawaay ngir kër gi nga xam ne rek dañu ko bëggaloon njabootu ka gi nga xam ne rek dañoo am ay jafe ci wàllu gis ak yu loolee suñu borom sottal ko waaye tamit jaarale ko ci ay kuréel yu nga xam ne rek rawatina aidons les enfants handicapés yi nga xam ne am nañ ci taxawaay bu am solo waaye tamit euh, kuréel gi nga xam ne rek moom la ñuy wax Yacine euh, ñoom itam am ci taxawaay gu am solo ak euh, Serigne Moustapha Thiam yi nga xam ne boobaak léegi moom itam ci amal taxawaay bu am solo tey ji nag ñu def li nga xam ne rek moom moo di acte de vente bi yàlla dogal na kon kër gi mën nañu wax ne jamono ji tàbbi tàbbi na ci njabootu ka comme niñ ko defee woon rek dañuy jox Serigne Moustapha kaddu gi moom itam mu yëkkati ci ay leeral Moustapha bisimilah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah wa mbokk jullit ji ñu leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant tey nag teewaayu alhamdulilahi rabbil alamin sunu borom wax si alquran la in shakartum la azidannakum wala in kafartum euh, lii dañ fi ñëwoon ànd ak service sociaux yi nga xamante ni ñoo nekk au niveau de département ñu ànd ak ñoom ak euh, kuréel yi ñu àndal aidons les enfants handicap ak euh, fondation Ndeye Yacine Orphelin ñu ñëwoon fii doon sàkku ndimbal ci kër gi nga xamante ni dañ ko tabax ba mu des tuuti ñu jëndal ko sëñ Omar Kam yi njaboote ñeent silmaxa yàlla dogal nag soxna Ndey Yaasin moom moom moo jënd kër gi benn nit kese moo ko jënd ci jaayante boo xamante ni jaayante na ko munta muñ yor xaalis di seetaan lii mu jël un million 500 mille jox nu ko pour ñu jënd kër gi alhamdulilah rabbil alamin jënd nañ ko ba noppi ba changé nañu turu kayit yi ba def ci turu sëñ Omar li ci des nag moo ñu indi fii ku ne xam ne kër gi des na des na lu mat 4 ans ak euh, terrasse ak euh, murée ak douche ak waañ ak lépp ak bunt ak yëpp robinet ndox euh, courant lépp war nañ ko am donc mu mel na kon dina lancé waat ñaareelu pàcc bi képp kuy wax ashahadu an laa ilaha illallah wa ashahadu anna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi lay woo ci liggéey bi dañu wax ni ommat silmaxa ñeenti jé ñeent fukki jéego suñ borom day araamal sa yaram safara ñeenti jéego ñeent fukki jéego waaye tey képp koo xamante ni dugal nga sa loxo ci jéego yi ñu bugg jële sëñ Omar Ka dëkk ba mu nekk muy village bu sore te xaw a tar lool te metti lool ñu bëgg ko jële foofu indi ko fii jéego yooyu képp ci dugal sa loxo ah suñu borom de bu la naree fay dafay liggéey opération bii nga xamante ne nag moom la def muy opéra opération omat omat silmaxa jëlee ko dëkkam indi ko fii ci Touba mu mën noo jege ñu gën koo mën a jàppale. kon ñoo ngi ciy woo ñëpp comme ni ñu ci woowee woon waa daara ji yëpp waa aidons les enfants handicap ak képp koo xamante ni bëgg nga jàppale sëñ Omar Ka ak njabootam gi ñoo ngi lay tàllal loxo ngir ñu àggale kër gi ci jàmm ak salaam ñu mën a indi seen bagage dëkk te dañoo fas yéene nag bu ñu ñëwee fii nag ñu gunge leen gunge éternel nga xam seen i dund ak seen i lépp dañu fas yéene di ko yor ba dootuñu am benn jafe-jafe ndax seen yaay mooy gàddu xale yi wër ci dëkk bi di lijjanti di tàllal loxo ngir lu ñu dunde loolu nag dañu bëgg mu arrêté ndax képp kuy tàllal loxo gënalu la kon ñun dañoo bëgg def li ko gënal bëgg ko jaar ci jullitu yàlla yi mu ñëw fii julliti yaay julliti yàlla yi di ko gunge di ko gunge ba keroog yàlla yi def li gën kon ñoo ngi woon ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf euh, ci kàddu yu rafet yu am solo yooyu nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko ci li nga xam ne rek moom moo di euh, jëf ju am solo ji nga xam ne rek tey ji amal nañu ko xam naa ñu jox euh, soxna Zeynab bi nga xam ne moom moo jiite kuréel gi ñuy wax aidons les enfants handicapés nga xam ne boobaak léegi itam am na taxawaay bu am solo boo xam ne amal na ko ci ngir jàppale ñi nga xam ne danoo amee laago waaye itam ñi nga xam ne itam dañu koo soxla ndax ñoom itam yàgg nañoo def ay euh, social te lii amul donc ñoom ci lañ leen fekk soxna Zeynab mu mel ni tey jii fii la ñu taxawoon euh, jàmbat ko suñu borom dogalaat ñu taxawaat fii euh, li ñu bëggoon mu sotti wala sax benn partie bi sotti yan kàddu ngay yëkkati. salaamaaleykum rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak tawfeex waaye di dellu di santaat yàlla bu baax. ndax fii ñu taxawoon bi ñu fi taxawee léegi mën naa ne tey la mat juróom-ñeenti fan ñu sant yàlla bu baax eh, am nag benn soxna su ko jënd ñu koy wax soxna Yaasin eh, moom it ñu ngi koy sant bu baax gis nañ taxawaayam ndax depuis bi mu gisee xale yi ba tey amul jàmm soxna Zeynab wala ma am jàmm rek damaa jënd kër gi yàlla borom bi nag dogal na yónnee na ci suba 1 million cent ba jëli nañ ko jënd kër gi waaye dañuy ñëw ci deuxième collecte bi kër gi ku ne gis na ne eggagul ñu ngi woo ñëpp ñu ngi woo ñëpp ñu jàppale ñu te yàlla tax bañ mën a jëlee ñii ci jafe-jafe yi ñu ne jërë ngeen jëf macha allah jërëjëf euh, soxna Zeynab ci kàddu yu solo yi nga xam ne yëkkati na ko dégg ngeen ko kër gi fi mu toll daal di ko bu ko defee rek ñu mën cee dëgg euh, dañuy jox sëñ ka moom itam fii la taxawoon yëkkati kàddu euh, yaakaar naa itam tey sunu borom sottal na ko wala boog benn partie bi sott na yan kàddu nga yëkkati jëmale ko ci fànn ko waaw xanaa sant yàlla di leen sant rek sant sëñ Moustapha Thiam mi nga xam ne mooñ jàppale ba mu agsi fii waaw ah, loolu rek moom xanaa wax bi moom mënta gudd. ginnaaw loolu yan gannaaw loolu moom xanaa ak lan ngay wax. sakkuwaat soxna si nga xam ne jëf na jëf ju mel ni tey. waaw di ko ñaanal yàlla ci suñu borom rek yàlla na ko yàlla jàppale rek kenn jàppale. Mhm. barke alxuraan. Mhm. macha allah yàlla ko yàlla jàppale xam naa ñu jox euh, seen yaay moom itam yëkkati woon na ay kàddu euh, tey gis nga jëf ju am solo ji nga xam ne euh, soxna Yacine def na ko muy jëndal nañu kër gi lan kàddu nga yëkkati. yàlla. yàlla fay na ko ba pare ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ci safara lañ nekkoon mel ni mu ngi ñu ngi ñu ommat indi ñu ci aljanna waaw koy ñaanal gudd fan ak wér yaram te ñu jàppale ñu rek boo ñu mën a ñibbi si fii ci aljanna ji ci Touba Mbakke ji. laa ci doon ñaan. incha allah mu nekk kàddu am solo ñoom tamit waxoon nañ bi jàll xam naa dinañ yëkkatiwaat ay kàddu woon nañ kontaan nañ xam naa ñoom lañuy tëje tëjee eh, soxna si. yéen bal bal ma njëkkale kan moo njëkke woon a wax na Kumba Maguette voilà Maguette tey euh, taxawoon nañ fi laaj la nga ne sa xol sedd na euh, tey itam kër gi jënd nañ ko lan nga nuy wax. waaw sant leen gërëm leen kontaan nañ trop suñu kol gën naa seet. Mhm. yal na yàlla yàggal fii. Mhm. yal na bi yokku bu ñu yëkku. Mhm. waaw ngay wax euh, Yacine soxna Yacine mi nga xam ne ah, ma kontaan moom ci trop. waaw ndax dañoo dégg rek mu wax. soxna Seynabou jox ñu ñu wax ak moom ba suñu kol seet mhm. waaw ñu ñaanal ko lépp mhm. waaw mhm. mu nekk kàddu yam solo euh, yow itam soxna si euh, yéen kàddu nga yëkkati kumba waaw kontaan nañ bu baax ñu ngi sant Baye mustafa bu doon keneen duñu jàppale wante def ñëw ci mbooye bi ñu jàppale sant nañ ko bu baax ñu koy ñaanal gudd fan ak wér keewal gi gën a yokk moom ak soxna Yaasin ak ñëpp sant nañ ñëpp gërëm lépp ñëpp lan ngeen di ñaan fi mu toll nii li des mooy ñu eggale kër gi bu ko defee ngeen mën a tox si ci jàmm ak salaam. waaw loolu lañ bëgg ku ñu mën a kuñ ko mën a eggale rek. Mm. bu ñu ñëwaat fii lañ soxla. macha allah waaw yow yéen nga ci sànni yéen kàddu nga ciy sànni keroog Amina kaay Aminata kaay Aminata. Aminata voilà euh, Aminata yéen kàddu nga yëkkati. kontaan nañ bu baax. Mm-hmm. rafetlu seen teewaay fii. Mm-hmm. ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak weer ak weer la mm-hmm. Baye Moustapha. Mhm. ak Tata Zeynab ñoom ñëpp. Mhm, ak Yacine ak Soxna Yacine ñu defar mhm. kër gi ak yëpp. kon daal tey kontaan ngeen bu baax a baax a baax. kontaan nañ bu baax. léegi nag lañ ngeen di ñaan ñu eggale leen ko ci jam bu ko defee ngeen mën a toxu si incha allah. waaw ñu ñaanal ñu rek. ñu ñu mun ñu def dimbale dinañ mun ci egg ak jàmm. mu te kër gi ak ndax yaa soxna Yacine moo def na bu dee jënd na ko bu pare. macha allah yow bu ñu toxasee bu ñu toxasee yaay togg laax yi incha allah. waaw. Mhm. kon kay ma kana fii ngay ñëw kon nga dëkk fii. incha allah rabi bu soobee waaw ok mhm. mu nekk euh, lu am xam naa tamit euh, sëñ Ousmane moom itam euh, oustaz la moom mu ci kàddu ci jëf yu mel nii nga xam ne islam lan la ci wax ci def lu baax rawatina li nga xam ne moom moo di wàllum solidarité. hamdu wa shukru mahan lillahi ala nabi waladi abdillahi jërëjëf sëñ Ousseynou ñu ngi lay nuyu bu baax di la di nuyu bokk yëpp di nuyu si Moustapha ak mboolem ñi nga xam ne ñooy def lu baax ndax lii dafa bokk ci euh, jëf yi nga xam ne l'islam daf ko bëgg daf ko gërëm tamit ndax euh, nit moom day def ci lu baax wala mu def ci leneen rek waaw mhm. ah, tey lii comme ni ko si Moustapha waxee léegi ba tari aaya ba mhm. euh, am na ci aaya yoo bari na loolu ci alxuraan mhm. waaye aaya yoo xam ne day wane nit ñi dañoo war a dimbalante ci lu baax dimbalante ci ak topp yàlla te bañ dimbalante akuk mooy akuk noono te lii sëñ Ousseynou macha allah sama xol dafa sedd ba euh, mënu xamul may wax sax ndax day acte bu rafet boo xam ne nii lii ko ko gis te am xol bu kii sa xol war na tooy waaw ndax ñii ku leen dimbali comme ni nga ko waxee léegi rek mooy dimbali ñoo xam ne nii dañoo dañoo yeeyoo ndimbal waaw su boobaa comme mooy li ñëpp wax rek mooy wax dëgg yàlla daal kontaan nañ bu baax a baax parce que suñu xel sedd na ba daanaka mhm. xëy na wax ji sax suñu aussi du ci du ci mën a bari waaye acte bu rafet la boo nga xam ne l'islam daf koy daf koy saluer mhm. daf koy daf koy euh, kontaane bu baax a baax a baax mhm. loolu daal lañ amoon ci luñ ci wax di sant ñëpp di sant tamit soxna si nga xam ne mooy soxna Yacine nga xam ne moo def lii di wane ne nit ki su defee lu baax dañ ko war a wax ba ñëpp dégg ko ndax nit ñi man cee ndax nit a ngi def leneen loo xam ne ni ñu ngi koy wax di ko di ko médiatiser te te tollut tollut nii waaw ah, wala boog tollut ci yàlla nit nag su defee ngir yàlla mis xaalal zarratin lu mu ndaw ndaw dañ ko war a médiatiser wax ko ba nit ñi mën di ko soroy waaw kon lu rafet la ñu ngi koy encouragé bu baax a baax di ko wax ne fi mu teg tànkam daal foofu la ndax yàlla da nga koy jaamu ci kaw jaam yi maanaam da ngay jaamu yàlla ci jaamu yàlla waaw loolu ñu ngi koy soññ bu baax a baax soon yaasin di la sant bu baax a baax ci taxawaay bi ci euh, jàppale gi ak tamit boobu ba léegi yaa ngi koy voilà jërëjëf euh, Serigne Ousmane Diaw ci kàddu yi am solo yi nga xam ne rek yëkkati na ko mbokk yi kon ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di wax ni suñu xol sedd na ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne euh, depuis bi ñu lancé collectif bi ba ngi ci taxaw di gërëm bu baax euh, soxna Yacine mi nga xam ne moom tamit amal na ci taxawaay ba am solo waaye loolu tamit ku ko wax wax Serigne Moustapha moom itam taxawaay bu am solo bi mu ci amee waaye tamit kuréel gi nga xam ne moom la ñuy wax aidons les enfants handicapés te soxna Zeynabou Ndiaye jiite ko di leen wax ne comme ni ngeen ko gisee rek kër gi jot nañ ci kër gi waaye li ci des moo di eggale ko ndax kër gi fi mu toll nii yaakaar naa ne ni mu mel nii euh, neexul dëkk kon ñu ngi lancé appel bépp jullit boo xam ne euh, yaa ngi dégg sunu suñu wax rek bu ko defee rek ñu mën cee taxaw bu soobee yàlla lépp egg ak jàmm euh, ndax yaakaar naa ne ku suul gileem ba mu des bopp ba nga mën ko eggale te incha allahu rabbi am nañ yaakaar ne ni ngeen ci jàppee woon ba ñu egg si fii di ngeen ci jàppaat ba mu egg ci jàmm ak salaam ba ñu taxawaat fii defaat ab sanc incha allahu rabbi ñi ngi leen sant baax di leen gërëm di leen jox daje incha allah beneen jotaay ñu fas yéene àndaat ak jërë ngeen jëf